serigne bi nee nuyu na len yeen bu baax serigne Omar nee mi ngi len di sante ci turu serigne Mbacke Bousso neena serigne Mbacke Bousso nak turu serigne Touba rek lay waxe mom la serigne Touba won bopam kon nak ñu fasiyene nek nekk ab Baay Faalam rek neena mom japp sante wi liggéey rek la xam wallahi bu nit ñi wax ne bu nit ñi wax. nee nañ jëf rek jëf am solo jëf rek am solo. na eh, sëñ sëñ sëñ abokan mii jëwriñ la ci kër gi. nee ko nii nii mu toogee nii wàcce boppam ne léegi la ko indi deux millions ne maa ko jàppale ci liggéey bi. ma ne ko nag xaaral mu ne ko nag xaaral ba ma yeewu ñii ma yeewu waale la nga ànd ñoom liggéey bi waaw nee na kon nag mu ngi noonu nee na positif rek alhamdulilah nee positif ci la ñu rawante positif ci la ñu rawante cheikh ibra positif rek moo ko yóbbu ne bokkut ak sëriñ tuba dara am na ñu ko jiitu serigne touba neena fanweeri njëbal ak juroom ñent ñiit na ko ci sëriñ Tuubaa moo ñëkk ñeen fukkeel na Seydina Omar taxawon ci islam ñen na Omar fofu la fekkon sahaba yi waaye teewul ak njàmbaaram ak takkoom ak dëgërëm moo tax moo tax ba Ababacar Sadiq wàcce ab liggéey Seydina usman la nek deuxième lol junj la sayyidna umar Omar taxaw sayyidna Omar nani na yónni bi moom la yalla yoni sayyidna abubakar la samp Seydina Ababacar Seydina Omar samp mu ngok ñu tudde lako yow mi sayyid Omar sayyidna Omar nee nak lol dara wara lu lu pas-pas rek kon nak pas pas-pas rek nee mom mi mii Omar mii day ku ne xam ne dofut waaye daa xam ne adduna ji du dara du dara am nay doom am na lépp waaye kere bi ko bi ñu ko indee teg ko fii ci kër gi mu nekk suñu mbàkk buso def na leen lii ma tiim muy ndono li samay rakk ka bokk sama doom yi déwnu ci dara doon ci dara nee na la ko sëriñ bàyyi woon démb nee na loolu samay rakk ñoo ko moom bu ko defaree baax na bu ñu ko defut ba baax na waaye lii ne samay rakk laa ko nag ku jàngut nag doo tari neen sëñ Fall am ku mu ci waa këram bi demee ba xam ne mag la wa kër na ko sampal seigne Modou sampal seigne Modou bu sa jang seigne Fall na duma ko def de sama dom. duma ko tamal cere jii ma tiim ndax cere jii ma bis bu ko xëccoog domi kima jox cere ji day def pang nga cere ji jox jox dom mu xëkk ma nee loolu mooy wax ji nee na moom doomam moo koy wutal cere boppam loo xam ne du ñëwee kenn ëllëg bu su nga boolewaan ci ñun ñii waaw ñun ñi kat loolu bëgg kat kenn ku ci ne duñ bañ a ñee man mi def fee moom ma jox mi marché bi jëmmi sama maam sëñ bay sekk tax pës téef bu mu amoon moom mu xam ko sëñ aboomi kan mii sëñ nguur a kan mii maamam jëwriñ seigne mbacke bu solo Bayam sëñ Abu Kan mi moom seigne mbacke Mbàkke ci begam rek rek ni rek lo doon doxee ya? lu wax rek mu ne ko noonu la mom seigne Omar mi neena na kaddu kenn neena du dara waye neen te dina fi ci kërëm ba guddi mbacke bu sunako Mbàkke Buso na ko abdou kan na nga xam ne Abdou Kan ak Mor Mbuub ak Mor Mbuub samay taalibe leen nee wax na ko ko loolu wér la amin momi maam daan njëkk njëkk mu ne may ku may jox nangam maam daan may jox nangam mayut ko bu say aajo maam aajo nee kuma jox bama jox seigne bat bu sama dafa faj sa aajo yow nee lo loolu maam daal dundee tawarkal jere jërëjëf kon nak seigne bi neen taal suñu loxo ñaanal leen nee dekk bi nak nag di buso des fi defere ba defaru ku fi yaqit da nga yaq ba yaq la faw yas billah nan bok nak ci ñuko defar wa wañu xam na ma ci yoon mom neena ko gis xam na mi ngi ci yoon loolu loolu nak bu so lañ ci ne defare moko taxaju juk loolu nak liñ ci doy séré moy wa lima ko bëgg leral loolu ko bëgg leral señ bi comme niñ ko waxé légui xamane señ ma fa dañ ko jox mu jox cadeau ndax liggéey bi niñ ko waxé légui dañ indi perfect mu jox cadeau séré yi ndax mo jité magi passif fi ci dëkk bi ni ma ko waxé légui daayira yi nga xamne and nañ ko khidmatul khadim bo señ mor bu so bi liggéey sëñ Mbàkke so waxtu na ci dëkk bi mi ngi ñëw na sëñ Ibrahima Faye jiite ko Ibrahima fay sëñ sëñ Xaadim sëñ Xaadim Faye mi ngi nii Xaadim Faye mu anamu association bi nga xam ne mooy ànd suqali Guédé ca Maxtaar Fall jiite ko ak ñoom Alaaji Sekk moom nday boobu mi ñu ngi nii ñëw na ci liggéey bi daayira sëñ Bay Sekk bi nga xamante moom lañ jiite ci ne ci taalibe ne ci kanam ñëw nañ ci liggéey bi mbooleem chef de quartier yi di chef de délégué yi ne ci euh, koñ bi yëpp ñu bare bari ñëw nañu wax dëgg yàlla sant lu baax kon ñu jox sëñ euh, Moussa Faye mu seen ay kàddu. asalaamaaleykum mbooloo dañuy dolli tuuti kàddu yu seede rek mais balaa loolu kenn ku ne ñu ñaanal sëñ Omar mii yàlla na fi yàgg te wér. yàlla na fi yàgg Cheikh Omar yàlla na fi yàgg te wér sëñ Omar yàlla na fi yàgg te mille 2010 damaa ñëw fii ci gerte di ubbi école mu metti woon trop xam naa xàmmewu ma école bii ci souterrain bi maay directeur ba te pour ma tijji woon ko dafa amoon coono moo ñu jàppale tey ba waxuma la bee ci marché bi waxuma la bee amee am nañ fi ñett te loolu lépp moo ñu ko ñaanal moo ñu joxoon autorisation kon tey ji mu ñëwee ba Pastef am yàlla def ma jiite magi pastif nekk fii ci gerte ñuy liggéey Guédé kon maa ci war a jiitu ñun nag waa Pastef lu na ñaan nga ñaanal ñu président Diomaye ak Ousmane Sonko lii ñu yaakaar ci ñoom ci réew mi nit ñi jàppale leen ba sunu borom teg leen fi ba abadan man loolu laay ñaan yàlla nañ fi toog ba abadan defar sunum réew loolu daal laa bëgg nga ñaanal ñu ko sëñ Mbacke Bousso ci màggalam gi di ñëw ñu ngi ñaan sëñ Mbacke Bousso sunu ñaar ñii ñu fi teg yaakaar na mën nañu yore sunum réew yalla nañ fi tok ba abadan ànd ko sëñ Omar Bousso jërëjëf mu ne ko ngay wax muy Daouda Tine loola président Bassirou Diomaye fay mi wax Daouda Tine nee na ki ñu wax Daouda mom moom jëwriñam la woon soxnaam moo Bassirou Diomaye fay mo ñoo bokk lepp soxna Awa Faye koo ko xamna ko nee kon xam na ko nee moom xamul wax jëf la xam jëf rek la xam nee na ma alaaji ñan tudd na ay fi ay daayira ñu ne anañu nee na li mu daal lii la xam ñàkk rek mm-hmm. waaw ne jëf rek mooy kër suñu bu buso gii ñu nekk bi fi suñu mbàkkee nekk daa mu soon a jommi lakk ba jeex tàkk bi lakkee ba jeex tàkk seexul xadim yëg ko bi ko yëgee woo suñ muudu moustapha woo suñ fallu woo suñ basiiru ni suñ muudu moustapha seen kër baay mbàkke ga de daa jommi bëgg Mouhamadou Moustapha boo demee fu fa ab néeg tege woon nanga ko fa tegaat ni siñ falu boo demee fu ab lal tege woon na ko fa tegaat ni siñ basiiru fu ab téere tege woon na ko fa tegaat bañ dikkee kenn ku nekk def lu kawe njort lañ la santoon bañ noppee siñ mbàkke jël xalima ak kayit bind ay woy yónnee ko Seexul Xadim sant ci sëriñ bi seereel ci sëriñ bi ni ko ñu ngi fi yebaloon defen def nañ fi jëf ju kawe njort si seexul xadim dal waat ñoom ñett ñëpp ñu teew biñ dikkee mun leen seen baay Mbàkke yónnee na fi ay bayit di ma xamal ni ma la leen santoon defe ngeen ko nu kawe njort waaye nag damaa bëgg ngeen xam ni seen baay Mbàkke moomee ku mat a liggéeyal la seen baay Mbàkke moomee ku mat a liggéeyal la rek maa ngi jégalu nag baax